la journée culturelle bi que Regard mais li une journée culturelle parce que fi village plus de 100 ans 100 ans ci gannaaw dafa amone qui bi nu mo daan qui dafa am yu ñaan pratiquer lolu disparaître Tay ñu né dañuy suñu mbokk organiser ñi ngi cinquième édition mais mi buñ fi dañ profiter aussi wax leen lu jëm ci développement développement fay

donc nous Lolo, merci répondre mais également sensibiliser de demander au chef de l'État pour que nous ce projet de dévolution Nous avons quelques jours, mais il que état du Sénégal buñ ci régler le problème parce que si dévolution nous avons donc nous donc message le 4 avril

ndaxte xam nañ ne que béy bi bu dépollué tey ñi ngi fi naan coow mais am na yeneen yoo xamante ne mën nañ ko fi def bu leen fàtte aussi Dakar Gorée fii lay jógee di dem mais fi Dakar Gorée di jógee da war a dem fay ba Gorée ci béy bu pollué la donc loolu aussi war nañ ci taxaw dañuy sant ñëpp di gërëm nag jërëjëf